lay oh. xewee balaa match di tàmbali ñu def avant bi su match yi jeexee ñu jekkali bu Sénégal di joué nag ñu yenn. Soir de Cannes. Analyse. Au Cameroun. et sur la TFM. mooy sunu gaal. li ci junjee jësin dëggal ma bësin gaynde yi li tax ñu am ci yéen yaakaar yéen la kenn naatablewul seen jàmbaar gaynde yi li tax ñu am ci yéen yaakaar yéen la kenn naatablewul seen jàmbaar ñëwaat nañu euh, merci beaucoup à Mam Fatou et toute son euh, et toute l'équipe bi nga xam ni ñoom la bi nga xam ni ñoom la àndal euh, ci euh, plateau yi nga xam ni gis nga ni nga xamee ni noonu la ñu xam noonu la ñu amee ñoom xam-xam ci football. Mhm. bokkut ak ñun. waaw ñun ci am ambiance ñu am xam-xam. ci ay kafe ki ree ci animation. bu ñu jëlee plateau bi. waxtaan ci ak def ci lépp loo xam dañ ko ciy def. waaw kii <laughs> la lépp waaw naa du ñàkk ndax. waaw kii kan la xale dañuy a feeñ. ah sa sabadoor rakk nii nga sol. sa sabadoor rakk bi ba pare di wa Eh, eh, eh. ah lam bi réew de waay may nu waay yow barki yàlla ki dafa réew ah, ki yebaate nag ki amul ci kenn respect sol ma doorab rakam bi dugg ci plateau jàmbur bi nii ah ñëw ah, waaxu nii dugg ah. ba ñu jox ñu ba ñu jox ñu ah waay bu ngeen noppee euh, bu ngeen dee noppi rek ñun acca nañ dem yaakaar naa ci deuxième mi bi lañ song nii maam daan premier mi bi waaw bii amul ah bii amul aba fi ñu toll nii tem tem tem mhm. ku yor ay bii abal nu ba nu yor jox la soxla na nii bii ñaatam waaw gisoo kenn na kuy jaay bii dimbali te yàlla tax waxoon ci bi rek ah. il faut ñu dugal au moins suñu parce que match boo xamante ne dañ ne la tey jii ku gañe rek yaa nga ca ku nga ñibbi ku nu gañe nga ñibbi ku nu gañe nga ñibbi ça dépend ci yow dalal xel ah bu nu la gañee da nga ñibbi waaw leen na nag moo mën a am yàlla na nu yàlla dimbali ba nu gañee ñaatam bu nu gañee dañuy ñibbi. dañuy ñibbi te yàlla bu nu gañee waaye yàlla bu mu am waaye fi mu nii nii première mi bi jàll na. ñu tiit. damaa tiit. waaye naa ni ñoom ñëpp xam nañ leen di xaar. xam nañ li ne seen ginnaaw. 17 mhm. millions de Sénégalais ñoo ni support. allé ñoom bu leen neexee ñëpp de. Sénégal bu leen neexee. kan ñëpp ànd. ñu xuloo woon juboo ñi ameloon ñii. waaw ñenn ñi xaalis ñu baal leen ko wala ñu may leen temps. déedéet yooyu yëpp ñoom mën nañ ko si mën nañ régler yëpp ñii. waaye waaw ah, ah, waaw football man lu ne. football mën na lu ne. man ngaa jeex côté nit koo xam ne ba ngeen gënee kottante. daa yàgg na. laay dëgg la ga Sénégal gañe woon léegi. nga gis sport en général man nga dafay dafay jubale dafay dafay boole donc tey bu ñu gañee am nañu bëri ñoo xamante ne tey comme ni ko Abba waxee ñu ngi rombante mais mën nañu tas rek lëngoonte te duñ ko tey donc yàlla na yàlla def ñu am victoire daal ay seetaan na koo xamante ne xale bu jigéen ngeen njëkk-njëkk wo a kottante loolu la bénéfice la lu ne mën na ci jur loolu bénéfice la lu ne mën na ci yàlla mën na lu ne yar kal day am koo xam day nekk ci koñ bi waaw mënta am borom kër waaw nga ne ci koñ am soxna waaw nga koo

mi na bu Sénégal Sénégal bu dóorul 3-0. ah ma wax Dabala. Eh, eh. Sénégal ay sunu Mm, yéen ah maam maam benn bi rek baax na. ah benn bi rek baax na. ah benn rek doog a lijjanti yéen rek. Malick Gueye maa ngi lay ziar bu baax a baax ak ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan ci live bi. ñu ngi ca wala nekkuñu ca. ñu ngi ci live bi ñu ngi nii en direct. voilà ñu ngi en direct ci live bi Facebook. ñeneen mhm. ñuy suivre en même temps di seetaan télévision Futurs Médias euh, di di di seetaan match bi. moo xam fu ngeen ko mën di jàpp rek. joueur yaa nga ca. ñu ngi leen di kontaane bu baax en tout cas ñu ngi leen di bàyyi xel yéen tamit euh, bu baax a baax. Mhm. am Mamran waaw xam nga Aba fi nu toll nii tem tem tem. waaw ah, ah, bu noo tegee ci tablette nen mën naa mën a ah, mën a toj ndax fi ñu toll pression la nekkee. ñu ngi ñaan yàlla mi nga xamee mooy suturaal yàlla nu yàlla suturaal. ba nu génn ci lii ñu nekk. ndax fi ñu toll nii askan wi kenn na ko dugg këram mën ngaa sax teb gaasam te du ko yëg. bu ñuy seetaan ay match di am pression ak yooyu. waaw ñu ñëw toog fii ñun dindi leen seen pression. waaw waaw ñoo ëpp pression. pression yi dafa tegaloo ci ñun sax. dañu dund jours yoo xamante ne campagne électorale résultat yi génn démb Sénégal joué tey waaw ba léegi résultat yi génn ñu ngi orni yi ba léegi ñu ngi ci orni ba léegi ni ah yaa jeexagul jeexagul jeexagul jeexagul mooy su ma nee jeexagul rek recevoir ay messages. <laughs> yàlla baax na kii ni ma gañe gañe na. kii ni ma na man xamu a ngi ay problème yoo xam ne gis nga xale ñiy monté émission yi. waaw ñuy bàyyi pression yi. pression yi yàlla baax na. Ah. nee yow ba nga a dalee def ba léegi mosoo dindi lii de. déedéet mosul musoo ko dund musu la am musu la am te lii yàlla bu mu amati. yàlla bu mu am kay yàlla bu am fi géej. yàlla na Cissé. waaye dimbali ñu waaye. na fi géej. waa Cissé yow tam wax nañ lu yàgg. may dimbali ñu rek waaw waaw. clip clip bu ñu waxatee lu yàgg rek dañuy dimbali nga may ñu clip nii tamit. ñu noppalu tuuti seen. clip <laughs> euh, pression bi ñu bi ñu nekkee nii. waaw ah. wax nañ lu ne. lii yàlla ñëpp mënuñu ko de. waaw ah. eh, yàlla na jur jàmm Sadio ni mu gaañoo waaw. Oh. Oh, oh, Sadio jug na. ak moom ak kële yëpp ah moo góor bi yëpp yëpp yëpp ah yaa ni ni mu daanoo moo metti ni mu daanoo oh là là football dafa bari contact euh, dafa bari contact trop ah, sport loolu la oh wala la la oh la la la. kii dafa dafa am problème image yu mel ni moom image yu mel ni moom. waaw bëgguñu di ko gis quoi. image yu mel ah, ni moom bëgg nga di ko gis fenn dafa am problème fenn fenn euh, c'est le sport mais c'est c'est très dur métti na trop et puis euh, daanu bi dafa métti donc euh, di wax rek ni sànq ñu ngi àndoon nag Da Brand Boubs oh. seen kumpa ak ñeneen ñoom ñëpp di dooleel ah. lion yi mm, mm, mm. pour ñu gën a oh gën a am gën a góorgóorlu voilà métti na trop donc oh, métti na métti na ñu ngi ñu ngi am ñu ngi am confiance ba tey ci suñu gaynde yi yàlla leen yàlla may ndam et puis di wax ni ñu ngi leen di remercier yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi seetaan télévision mais également également di seetaan seen émission seetu Sénégal merci beaucoup Pape Mass Mbaye Déni Marie moom tamit mi ngi ak waa Déni Marie euh, yaa ngi woon ci Sadio Mané ak góol bi. waaw mais dañuy ñaan rek yàlla def euh, jàmm rek am ci. parce que wax dëgg yàlla euh, lii metti na trop waaw metti na metti na ñaatam. Mm. lii metti na trop wax dëgg yàlla ñu ñaan ñoom ñaar ñëpp jàmm rek am ci comme ni ko Aba waxee mm. léegi ndax football dafa doon loo xamante ne nii. waa sport bu bu metti la quoi bu metti la parce ku ci nekk da yëkkati sa drapeau mais nag nañuy bàyyi xel ne ñoom ñi euh, lu nu bëgg bëgg ñun victoire bi ñoom ñi tamit euh, waaw ñoonu ko gën a bëgg parce que boo xoolee ni ñuy footballé ak affaire bi ni mu rek nga xam ne lii metti na trop waaw yàlla na ci jàmm rek am daal waaw lii metti na moom franchement lii metti na léegi yow lu bi di wax ni mu ne lan la VAR moom lu mu joxe VAR lu mu bi gardien bi ah oui ah oui. góor bi la ruus. waaw ruus non non non non. daa def faute. daa def faute. Eh. dafa def faute dafa def faute. mais booy. non dafa def faute daa génn ci biti moom bu génnoon bu dee tam ci kasam la nekk. waaw ku ko laal moom moo am faute mais daa génn. dafa génn dafa génn moom moo def faute. moom moo def faute li mu def nii c'est trop risqué quand même. moo def faute il est blessé c'est très normal il est blessé waaye yéen a ñëpp a ngi yëngu de fi mu ne nii. waaw waaw parce que dañ ko ruus parce que dañoo ruus parce que. góol bi lenn xoola dara jotul góol dara dara kii ba xam dafa na blessé tamit. on sait jamais on sait jamais mën na blessé ñaari rouge la ñu am. léegi kon euh, góol Aliou day génne benn milieu terrain indi attaquant. waaw waaw léegi bi dootul ankay ankay ankay indi góol mais dañu fi am benn joueur boo xam ni. Ah. dañ koy dañ déedéet dañuy toogloo kenn. kii fu mu ne. waaw kii ban seen a télé lay seetaan. waaw coupe d'Afrique bi duñ ko wax gars duñ ko ko bindal ci këyit. ah yàlla baax na. Eh, ruus encore xanaa Aliou Cissé dinañu dimbali. yi ñu toogloo benn militaire. waaw indi benn attaquant il est blessé il est blessé. dafa gaañu koy. bu ñu rougé benn joueur du kenn du ko remplacer. dañ koy remplacer dañ toogloo joueur indiwaat góor. nan nu war Sadio Mané dañ xam ah, kii nan nu war Sadio Mané suñu jour nan nu ko. ñii de ñaga bu ñu leen dóorul trois waaw ma dàq na ma te xam naa def dégâts. waaw yow ñii da leen di doon ma xam damay def dégâts damay def dégâts. yàlla mën na dàq ñëw def damay def dégâts. man xaw ma Ndiaga Ndour kañ lay ñëw def émission. lu waay wax maa koy dégg. waaw yéen gis xam nga. Euh, waaw mas nga ko invité Ndiaga. mu fay lay waxal waa fee lay waxal man maa sonn day waxal di seetaan te lu def émission. ay directeur de. waaw da ngay nekk ci plateau bi di def émission. ñu lay nii directeur di la tegal pression xam ni am nga pression. waaw ñu lay tegal beneen pression. waaw xam nga Aba kenn mës gis lii. xam nga Aba. toll nii itam ñun lenn rek lan mu mën a arrangé. muy bii. bii rek waaw nan xool fu bii ne. eh, eh directeur a ngi taxaw eh, vous regardez la télévision Futurs Médias. waaw ñu àndal leen seen ma ni télé bu mag bi eh eh eh. ma match bi ñun fi ñu toog ñu def émission. waaw bokkut ak fi ñuy seetaanee match bi. Eh, bokkul bokkul match bi ñu ngi koy seetaan ci télé bu mag bi. waaw la télévision leader. waaw la télévision des grands événements. moo fi ne quand c'est la CAN. waaw c'est la télévision quand c'est le TER. c'est la télévision quand c'est le discours du président de la télévision. waaw casse le 4 avril. moom la ñëpp a seetal moom la ñëpp a seetal casse les lamb de yoo xam ne ñee ñoo ko tëj. waaw de la télévision. moom la ñëpp bëgg moom la ñëpp di seetal. benn rajo fi ne. moom la ñuy déglu ak benn presse écrite. moom la ñuy déglu waxal waxal taxaw ma. waaw loolu moom moom naka ñëpp xam. ndax ñu doon ni barki dem moo Ndiaye. ma dem sama directeur mën koo baalu. waaw. bëri fekk nga am karaw. ñii ñaari ruus dañu am. Aliou Cissé bu génnee. ku muy génn. yéen ñi nga xamante ni seetaanu leen beneen télé bu dul télé bii. waaw ñu wax ni Sénégal dugal na un Sadio Mané moo dugal bii bi. mu ne rek ah. accordé nañ ko te ngeen maa bàyyi ma yëgal. mais yow eh waxal. waxal waxal waaw léegi ñu. waxal waxal waaye arbitre fu mu jëm. Eh. ay waay. arbitre bi ah fan nga jëm ma wax de maa ngi nii toog ci plateau bi kenn mayu ma ma wax ñi nga xamante ñoo nekk si biti fee ñooy def émission. ayca nekk lii moom dugg na ba pare moom. lii moom la ñuy wax leen quoi mais. pas pas pas ci biir bi quoi. mais ñi nga xamante ni seetaanuñu beneen télé. Mhm. bu dul télé bii. waaw di wax ni Sénégal dugal na 1-0. waaw léegi nii. waaw Sadio Mané moo dugal bii bi. ndeysaan di ko dugal ba pare góol bi jëlaat. Euh, waaw kii bi di ko sànni. waaw di ko na bu yàgg. na bu yàgg. lim ñu xew waaw ak lu muy wax téléphone. lan lay wax ak ñoom lan lay wax ak ñoom am na fan moo am fot. mais lii amul fot fan la am fot. waaye kii dem vaar waay loolu daa mën a ne waaye kii dem vaar waay. arbitre gaawal ni ñu yàkkam. waaye gaawal sa leel bii. ah non non waay est-ce que woowuñu ko seen waa. kan waxee bu demee vaar sax lii dafa dugg. yow kii. bii la. Mamran. ah Mamran. laa ilaha illallah. léegi nag ñun ñun ñun. waaw ñun lan la la la. li ma waxoon te koo weddi fii. dañuy door de waxal. Mamran. ah li ma waxoon léegi weddi ko ci télé bi. waaw dee da ngay xaar ban dem ba ñëw. y a rien. léegi duñ. y a rien lan moo xew. waaw lan la. mais fan la problème bi nekk. waaw fan la léegi lan. góor joueur Sénégal. waaye arbitre puusal fii waaye nga dem waaye ñu ne ñuy joué waaye yow. y a foot ba fee la. waaye xanaa bu dee far maa leen a xam yow. action bi ñu jéem a bu yàgg barke yàlla lii li am la. waaye yow lii li bii. action bi dafa mais li action bee jeex bu yàgg. cee ah, jël sax sa ndongo sew gi maa ngi xaar directeur nee nañu xool li ñuy wax fi ñu toll nii ñun waxatuñu suñu neeree wax. ah waaw balaa yeneen moo di génn. waaw. Eh. bii la ilaha illallah. la ilaha illallah. la ilaha illallah. loolu rey. awoy awoy awoy. boojo boojo. seen baay ñëw show. kon à tous ñu ngi dox rendez-vous léegi léegi bu ñu jógee. Euh, rendez-vous également ce sera la reprise demain incha allah à la rajo 17 18 incha allah. di remercier bu baax a ma Ram Mam Ran ça a plaisir ñu bokk ak yow bi. Aba également ci ñun la yàlla féetale. chaque jour bu match amee ñuy show. nga à mardi prochain ci télé waaw comme ni nga ko waxee rek. Euh, ñaatam waaw fi ñu toll nii tem tem comme am nañ benn. Mhm. yàlla mën naa def ñu amaat ñaar. waaw Aba bu ñu yàlla ñaar nag suñu xel di doog dal. waaw waaw ñu ngi gërëm ñi nga xam ne ñoo doon. waaw dañuy wax ak ñan. ñu ana ah, waaw waaw waaw waaw. maam la ah day fan la waaw fan zone. waaw fan zone la. waaw ñu ngi gërëm ñëpp waaw fan zone ñu ngi foofu toog. nañu ñëw waaw fan zone. nañu ñëw ay supporter ci ginnaaw waaw ndeysaan surprise la. yàlla na nu yàlla defal jàmm. amiin amiin nii wax dëgg yàlla. Mm. sama mémoire bi moo fi nekkul. gars yi ñu blessé waaw ñuy gars yi. mais ñu génne ñu ci gën a a baax nañ leen génne denc leen. denc da ngaa toll foo la pression sa équipe foofu. pare nañu. laajal lu Cissé wax. nee na bu jeexal dañ leen waxtaan ñun tàggoo woon ah? nañ ba pare. waxal Cissé lan la wax. li Cissé di wax ak li directeur di wax lan la Cissé wax. <laughs> laajal ma Cissé lu mu wax waaw laajal Cissé lu mu wax ki réalisé wul kee mooy réalisé. kan mooy réalisé. kees ki toog ci réalisation bi. léegi borom chemise bi nag. ki réalisé wul dara. Ah, day baagante rek day bàyyi bien rek. borom chemise chemise ñoom ñoom ma yem daa am pression. dafay stressé. dafa stressé mu ngi naan rek. ay ca sant nañ leen gërëm nañ leen yàlla na Sénégal gagné ñu jox leen rendez-vous suba ak jàmm ci beneen numéro seetu bi jaa ngeen jëf moom ñaatam suba ci 17 18 man Aba suba ci euh, dëggantaan waaye suba ci ngoon ñu ñëwaat fi nga xam ne mooy seetu Sénégal ànd ceeg euh, monsieur le maire booy kan ci kii day baan nee na bàyyiwut tey bàyyiwut suba waaw kay na leer ci boppu téléspectateurs yi ah. auditeurs yi nee na bàyyiwut tey bàyyiwut kay kii kan la ku ñuy ruus aussi da koo zone zone. ay ñun fi ngeen jëf ayca booy mën ngaa jël antenne bi. ayca ayca Cissé. ambiance ayca jël antenne bi. bëgg naa leen.